alhamdulilah. léegi dama xam moom dana dana wuy si dana wuy si. waaye moom moom waaye waaye seetlu wu dara doo waaw waaye nag. jërëjëf jaay jërëjëf jaay loolu mooy jërëjëf. sëñ Ba Deme daal. loolu mooy ndax wàllu sëñ Ba Deme daal. ñu ne ko sëñ Ba Deme ñu naan Fallou Mbara. dañ bàyyi waaw waaw waaw ñu ngi waaw. waaw moom mooy wàññi waaw waaw ñaan ko seen seen daam soora waaw sëñ daal ba ko dee jot li ñu ci moom. waaw sëñ Cheikh ñu ngi. ah ana sëñ Cheikh waaw sëñ Cheikh moom sëñ Cheikh moom sëñ Modou Mbène. waaw Serigne Serigne Daamu Serigne bi. Daamu de dama see am Modou Mbène daal. sëñ Mourtala Fall mu sëñ Cheikh Modou Mbène. ak Serigne Serigne Cheikh Baye Fall mu Serigne Mbacke Modou Mbène. ak Serigne Aliou. mu Serigne Aliou mu Serigne Mbacke Fall mu sëñ Modou Mbène. ak Serigne Modou Matar. waaw maanaam sëñ sëñ sëñ Modou Mbend moom fukki fukki fukki fukki doom la fi bàyyi woon sëñ Cheikh Modou doon taaw bi waaw sëriñ sëriñ Cheikh Mbacke Fall moom moom moom moo si mujj waaye ñoom ñëpp seen i doom sëriñ sëriñ sëriñ euh, sëriñ am di ñii fi ne moo si toppoon waaw waaw sëriñ am di sëriñ Cheikh moom mi ngi wàccoon quatre-vingt-six sëriñ Talla nekk ba quatre-vingt-seize sëriñ am di Fall ñii nag moo fi nekk booba ak léegi waaw ñaan yàgg fi lool sëriñ Mbacke nag seen rakka woon moom it daa wàcc mooy wajuru sëñ sëñ sëñ sëñ bon bii waaw waaw amoon na ku ñuy wax ak sëriñ Aliou mi ne woon mboobeen waaw ak Serigne Cheikh Mbacke Fall ak ku ñuy wax Serigne Moustapha waaw Serigne Moustapha Fall waaw waaw ak Serigne Khalifa Fall moom moo toppoon Serigne am bi moom it dafa wàcc daaw jëkk waaw waaw waaw ak Serigne Bunda waaw Serigne Bunda waaw Serigne am di nag a fi des mook Serigne Moustapha njabootam dina jëw waaw waaw waaw léegi jox ko dañu war a am sa certificat waaw dina am liggéey na seen doole liggéey boo xam ne serval bi benn liggéey nga mën a yi waaye nag ñooñu leen fay bor moom ngel ku mën ku mën lépp la waaye fay fay bor yi dàq sa mën a parce que ñii si doole yi maanaam jàpp booy mu jàpp na ko donc saa bi suñu dajee si jadi dan yang lebih sini muda dan beliau berusaha jalan beliau berusaha jalan di dia pakai lima tahun yang baik sehingga dia kerja yang tua dia mau bisa yang baik jadi kii war na nekk benn kuréel yu gannaaw seen tubaab su ma la nekkoon rek daa doon ko jëmbalaat nag si seen tubaab waaw mm-hmm. loolu Ibrahima Mbacke tey loolu la tey seen numéro benn bi nga ne doon sëñ Modou Benda te doon Cheikh Rafat day yëral kaw suuf xapo na jëppal ko sëñ Touba day mu sëñ Mountakha xam ne Cheikh Rafat mut nai kenn ginnaaw ko bu sëñ Touba mm-hmm. kon nag mu ñu wàllu ko ci sëñ Touba gii ñu mm-hmm. boole ko sëñ Touba yëpp jëlee muy Cheikh Rafat day sëñ Touba loolu mm-hmm. nag la boole ñu wàllu bi nii ak ndaw yi yéen noonu ci wax yow nga xamal leen nag loolu yi vraiment biir la neexal ka Cheikh Rafat yëpp jàpp parce que ko yéen a jëfee itam mu ngi bëgg a déglu sa ndigal déglu ndigalam kon ndigal ñooy ñu moom rek bu ñu fekkee seen faat rek kon nu ko bëgg daan fay rek waaw bu doon baax di ñaan nga yàgg fi lool te wér na amiin amiin soxla amiin ndax sabu bu yoon wul yëpp nga sabu ne sabu yëpp nga amiin soxla amiin dama la waxoon ñaa la woon ñaa la woon suñ milliards yi suñ milliards yi milliards yi ruu dama hmm. nu ko wax misaal ci ay ruwaay nag suñ milliards yi milliards yi ruu sa kenn du la yàlla seen soxla ci ruu yi sa ruu yi hmm. moo ëpp njëriñ ci ruu yi wallaay wallaay soxla ñaan nga dimbali nu boo ko bëggee dana am yàgg bi dëggal. amiin amiin amiin Fall amiin bëgg la yàgg bëgg bëgg la yàgg rek. boo yàggee dana yàgg. amiin Fall amiin daal sëñ Tuubaa bëgg rek te murid yëpp bëgg nañ. kon soo ko bëggee loolu naan su ko la yàggee te wér loolu nag. ba sa liggéey maam bii te àggal ñu bëree bëree bëree bëri te naaj yi nga naan la mu bëgg a àggal mu ngi àggal naaj yëpp. amiin njaboot gi nag moom ñaan nga dimbalul nag. ñaanal ndax mun na ñaan dara yàlla si rek lay ñaan ko yàgg sëñ Tuubaa kon ñaanal ko ba am ndox seetaan na muñ ci njaboot gi. amiin dafay saa yu nangu. seen njëriñ bi gën a kawe lool. seen xol yi dara ba jaay loolu lay. te man am ci man man am ci man man koo xam ne ko bëggee daal day mare. ndax suñu li noonu dara dalul. waaye bu ñu mënul li nga bëgg a dara woo. waaye su ma yee li nga bëgg a dara jël dara mel mm-hmm. kon ñaar nu mën nu mën li nga bëgg. yàgg bi loolu la. amiin amiin ñaan ko ci lislaam yëpp ak jullit yëpp mën a jëppale. parce que nii saa borom bind ci koo ko waxoon ndaw la lu ñu yoon. waaye nag yaa wax ci maam yi. a lu ci mën a gaawee wàcc jullit yëpp mën a jëppale. donc ñu ma si zone. liggéey bi dangay ñu naan loo ñu dem xale nongo jox nongo jox xale ngeen day ji noo woote woon am wut léegi yéen a dem soirée yi nañ màggee tubaab ñu dem collège yi koy liggéey ko waaye bi ñu reeral lañ déggee coobare sama borom yi waaw da nga kon xam ne loolu ah noonu gisee woon digal rek noonu digal ñëwee rek ñu jàpp ko waaw jërëjëf Thank you.

suñu saxaal moom si am di xëy na waaye suñu saxaal mooy mooy loolu waaye nag waajur bu baaxoon dañ ko dakkal ba kenn gën a ñaanal ko yaram ngoyam gën a dellu si ànd ak njaboot yëpp waaw waaye nag nan nan nan la ñu ñëw rek. إلا لا لا إله إلا لا واو واو إلا لا لا إله إلا لا باي باي إلا لا لا إله إلا لا إله لا إله إلا لا لا إله